Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf. li yéene kay xëyee tey réew mi quotidien bokk na ci li mu fësal xëtam bu njëkk lii Guy Marius Sagna daal di dund ci fi nga xamante ne mooy diwaanub Lomé ndax député sénégalais bi démb dañu ko agressé ci ab manifestation bi nga xamante ne moom la doon teewee ci réewub Togo li ko yóbboon foofee les échos duñu xamal ni kon bokk na ci jàppal tànk ñi nga xamante ne ñoom ñooy opposant Faure Gnassingbé waaye moom Guy Marius Sagna démb lu mu dund mujj na métti yéene kaay bi duñu xamal ni kon ay nit ñoo ko daal di attaqué gaañ ko ci loxo ak ci bopp laata ñu koy wala ca mu mel ni kon yëf yi tàngoon na jib foofee ca diwaanub Togo ci député sénégalais bi nga xamante bokk na ci parlement bu CEDEAO yëf yi tàmbalee tàng ngir wàccaay législative yi nga xamante moom la ñu dëgmal enquête moo ni xamle bokk na ci li ko waral suñu naataango di xamle ni parti politique yi mujj ñoo am li nga xamante moo nekkoon seen càkkuteef maanaam ñu yokk app bi nga xamante moom la ñu jagleel de candidature yi ci biir yéenekaay xamante ne parti yi ak ministère de l'intérieur ñu ngi ko doon sekk nee ñu ay ponk yi nga xamante ne déggoo nañ ci bari na lool ba mu des li nga xamante ne moo ñeel casier judiciaire ak bulletin unique bi yéene kaa bi njort ni kon dina bëri lool ay parti yi nga xamante ne ñu dund lu métti ci wàllu forclusion bi lu jëm daal ci app yi nga xamante ne kon moom la ñu jagleel dépôt de candidature yooyee Sud Quotidien di ñu xamal ni état nee na ñett ndax càkkuteefu parti ngir ñu yokkaat ñetti fan ci li nga xamante ne moo jëm ci app bi loolee ci boppam état gantal moo tax bis bi le jour gis ni yaakaaru yenn parti opposition dafa mel na jamono ji moo ne de ci diggante parti wi nga xamante ne sekkoon nañ ko ci samedi gi ministre bi ñu dénk kaaraange bi réew mi mu mel ni sax àndoon na ci waaye ay njiitam dafa mel ni ñoo ko gantal li yamba am mooy juboo mën nañoo wax ni mën naa am ci yeneen ponk ndax libération mu ngi ñuy xamal ni diggante ministère de l'intérieur ak parti politique yi noppi nañu ngir samp ab kuréel bi nga xamante dina tax boo waxtaan wi di wéy bu weesoo sax élection législative yi législative yi mu mel ni léegi leer na ndax liste national yi fësal nañ ko muy Pastef jàmm ak njëriñ sàmm sa kàddu ak yeneen Vox yi di xamal ñiy jiite yooyu la liste bokk na ci Ousmane Sonko ngir fa Amadou Ba mi war a jiite jàmm ak njëriñ Barthélémy Dias tamit sàmm sa kàddu mu mel ni kon waxtu liste yi jamono ji moo jot bu ñu sukkandekoo ci le quotidien mi dikkaat ci alliance yi ak kon retrouvailles yi di xam ne ni kon géopolitique bi mu mel ni dañu ko tëggaat jamono ji ko waral dara lu dul jàmmaarloog parti bi di Pastef parti ñu mel ni ñu tàmbalee xaajaloo bu ñu sukkandekoo ci l'observateur ndax nee na lu jëm ci partage siège nekk ci département bu ndakaaru ak yenn diwaan yu nekkee ci bët gànnaaru réew mi mu mel ni ñuy ànd ak Amadou Ba gisuñu ci seen bopp ci biir APR moom Diouf saar moo ci gisul boppam yéeni kay groupe Futur Média bi yokk ci ni tamit AFP bëri na ñi nga xamante ne kon gédd nañu ba beddeeku lii moo tax L'As Quotidien gis ni investiture yi jamono ji mu ngi mel ni luy tas parti politique politique yi PDS moom tas na ba noppi ndax Walf Quotidien mu ngi ñuy xamal tey ji ni Karim Wade daal nay dàkk ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ñàkk ànd ci dogal bi nga xamante ne jël na ko jëm ci élection législative yi ak ñi mu war a àndal Vox yi du ko dëggal ne ko ñooñee ñeenti responsable la bokk na ci ñoom ki nga xamante ne moom mooy Doudou Wade mi ñu dàkk ci biir PDS waaye Doudou Wade ak ñi mu àndal ci réew mi quotidien nee ñu yëfi lu jéeg njaag Karim Wade ci boppam mooy njaag ba tax nee ñu Karim moo bi ci xët bu njëkk l'info yéene kaay nataalub Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz moo fa fës yéene kaay bi di xam ne ni kon li ñu doon lam-lame jàppale ni dina am muy laale gi diggante njiital Pastef di premier ministre ak meeru Ndakaar bi bokk ci taxaw Sénégal ndax ñoom ñaar yépp ñoom ñooy jiite seeni liste nationale kii jiite caisse de dépôt et consignation ay kàdduwam la yor yor bi xëyee ni ki tey ji yéene kaay bi di xam ne ni moom Fadilou Keita li mu daal di yoole ni ki démb jëmale ko ci Ahmed Khalifa Niass ak Samuel ñoom ñaar ñooñu ay woto yi nga xamante ne dañu ko mayoon état bu Sénégal ñoom la ñu daal di détourné ba noppi daal di koy jaay njëg li tollu na ci ñetti milliards ak genn wàll lu Soleil yéenekaay yóbbu ñu ca Dandemayo di xam ne ni kon foofe lu jëm ci ndox bi tukkee ci fleuve Sénégal dafa mel ni nangu na dëkk bi ci boppam ndax lu toll ci juróom-ñeent fukk ni ay dëkkuwaay la daal di yóbbu ñaar fukk ak ñaar périmètre agricole lépp daal di nekk ci ndox bokk na ci ay dëkk yi ci gën a loru muy Lobali Padalal Belel Cemping Gural Dara ba ci sax Waoundé askan wi dëkkee ci village yooyu jamono ji yéenekaay bu aan bi di ñu xam le ni kon ci jafe-jafe dëgg la ñu nekk Lamine Camara génnee AS Monaco ci jafe-jafe dëgg ci samedi gi Rewmi moo di kat ci jaloore yi nga xamante ne doomu sénégalais bi def na ko ci jongante bi nga xamante ne moom la clubam sekkoon ak Montpellier bit bu mucc ayib la dugal ci njeextalub jongante bi tax ba Monaco daal di ci mucc muy des ba léegi ci boppu classement bi waaye li tax bit bi am solo lool mooy anniversaire téeméeri yi nga xamante ne club bi keroog la ko doon màggal ñu di